Est-ce qu'on peut des, des, la chance des candidats Bon, moi, je, moi, moi, le refuse. Est-ce qu'on peut s'autoriser moi, moi, moi, je moi, vraiment, quoi. D'accord. <laughs> Vraiment, parce que souvent, soirée tout, quoi. Souvent, soirée ouais, tout. Soirée tout. Non, voilà, on dit déjà. Pour moi, voilà, oui, le journaliste peut le faire. Hein. Dans 7 heures de temps. Mais, ah, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, juste il faut il faut rappeler aussi aux aux aux électeurs que ni bureau bu ñu ubbi à 7h30 pour leur faire voter qu'ils le refusent. huit la war a huit la la war a démarrer. wala foofu dafa am dérogation. loolu sew sew a huit heures waaw huit heures. après la rek taxul mu mën a nekk. waaw xëdd dem foofu ñu ne la voté nga voté te huit heures sotagul heure heure. waaw su ma slogan la xam nga nag nit mën na ko dégg xëdd sept heures mu dem voté. li wax noonu dëgg sërëx dëgg la lu jar a bàyyi su ma su ma jugee nag ci vote bi dama leen di yóbbu feneen ndax maa ngi ñëw ci question boo xam te ni yoo xam ne bëgg naa dinaa la ko poser Alioune. Euh, mooy Mansour ci yow laa koy tàmbalee. lan mooy les defi de l' après Macky Sall. non plusieurs défis il énormément de défis post scrutin mars 2024. Mmh. Hmm. le premier défi pour man. Mmh. c' la jeunesse. sëñ bi Abdoulaye Wade moo toog King Fat ne moom nangu na ni il a échoué sur l' emploi des loolu je pense que man maa ko couvrir beneen défi bi président moo taxaw ne même bu defarul ay pont day teg réew mi ci yoon. Mhm. justice sociale. Mhm. les ruptures ou bien la rupture d'égalité ou bien des inégalités. Mhm. mais est-ce que xam nga ni juddoo Jurbel condamnation la. waaw hmm. a ah. ah, mais tu es condamné à bois de l'eau boo xamante ne c'est pas une eau potable. xaaral mu ñëw rek ah dama lay wax gox yoo xamante ne def naa leen quoi. nga xamante ni. tu es condamné te loolu jaaduwul mais est-ce que xam nga am na ñoo xam ni depuis que Sénégal est Sénégal cette lettre yaa ngi dégg mësuñoo gis seen bopp ci politique réew mi mais est-ce que am na ñoo xamante ne di pour ñu rawale leen ñu dem mucc dañuy envoyé ay Wave ak ay Orange Money ambulance mm-hmm. te wóorul sax conditions yi réuni mais yow Tivaouane nan lañ mën a xoolee lu mel ni Tivaouane gii hôpital li fa lakk nan lañ mën a xoolee Louga gu jege gii hôpital Maguette yaa ngi dégg mu fay lakk nan lañu ñu mën a comprendre depuis 60 on a un ministère de l'éducation un ministère qui a traversé les âges les génération ñu ne la jusqu'à présent am na ñoo xamante ne ils sont condamnés à être sous abri provisoire pour jàng am ñoo xam ne bu ñuy jàng il communique avec les serpents am na ñoo xam ne bu ñuy jàng <laughs> non je te il communique <laughs> avec les animaux en divagation mais li ma lay wax nii cest à loolu mooy réalité Sénégal quoi. d'accord ñoo xamante ne ils sont condamnés par exemple fi Aliou Sané moom moo point A yaa ngi dégg. Mhm. Abdoul Khadr mooy point B A ak B am nañ courant jibi saar nga xamante ne c'est un point intermédiaire. Mm-hmm. amul courant da gis dëkk yoo xamante ne bii. ah. non c'est-à-dire ñu tëb ko. Mm-hmm. parfois c'est pour des raisons politiciennes. Mm-hmm. parce que le point intermédiaire il n'est pas avec le gouvernement. il est un opposant il est maire. léegi dañ koy sanctionner sanctionner ses populations. rupture d'égalité. d'accord. mais beneen defi bi. c'est des défis en fait de transparence d'accord mais Ahmed euh, maanaam Ahmed sax mais kon Djibi Sarr. Mhm. kon rapport Covid bi garaawul quoi kon. gars yi dañ cee jënd tàndarma xaalis bi jeex takk. waaw mel ni jeex na. tàndarma ak benn kaas ataay xaalis bi jeex. mais ñëpp a cotisé Soleil joxe nañ sagu 12 millions 500 mais puis tous mais xoolal. Ah, mais mooy <laughs> li ñu doon wax sànq li ñu doon wax sànq en off. am na ñoo xam ne seen journée ça commence après 18 heures. ñu ne leen vingt et une heures bu mu leen fekk ci mbedd mi mais est-ce que état bi en un moment toog na xalaat ñii nga xamante ni bii ñun ñoo leen wax dem leen toog dem leen ngeen toog yi parce que le Sénégal était en guerre et que le Sénégal avait singé la France parce que Macron a dit la France est en guerre le Sénégal a singé la France pour dire qu'on en guerre mais en guerre contre qui Sénégal musuñu toog un moment de répit pour dire mais kon ñii pendant doon dund terewul nit ñi def preuve de patriotisme président woote ñëpp dem wuy ji ñi nga xamante ne bii am nañ courage dañu génn taxaw ne ko ah na góor góorgóorlu ba xaalis bi tegu ci yoon. Mhm. don OS. ñi am courage laa waa mhm. ñi nga xam ne defuñu fa woon pour faire du mannequinat pour photo wu. Mhm. yaa ngi dégg yéen demoon ngeen ah. oui on a été représenté par Aliou Thiat eh, na. su ma juumalee c'était le mardi. 25 mars 2020 su ma juumalee. je te parle de tête. après léegi ñu dajale 1000 milliards sëriñ bi. ñu jox ko ay agences yoo xamante ne bi ils ne sont même pas référencés en matériel médicaux ay agences de voyage lañ. jox leen ay marché sept marché la valeur marchande quinze milliards. nga gis benn ministre taxaw assemblée. wala rapport documenté ne chaque jour dañoo retiré cent millions. jënd ci tàndarma kaasu ataaya xaalis bi jeex tàq. après c'est le ministre des finance qui sort pour dire que non affaire bi taxu ko demee noonu c'est six milliards. sëriñ bi six milliards lu mu dee dee mën nga ci am euh, cinq voire six hôpitaux référencés parce que ay hôpitaux référencés mën nga leen construire. nga xamante ne li ci des ay ay non mën nga def mën a defar a bëri 750 millions boo ko téye mën nga ci def ay hôpitaux mën nga ci defar un hôpital référencé peut-être dina def waaw une classe boo xamante ne xale dañ ciy jàng 5 millions la yenn forage yi puis plus euh, le matériel de forage ambulance yaa ngi dégg c'est un million cinq cent c'est moins de deux millions dañ léegi bu ñu taxawoon ci six milliards kese kese kese kese mais loolu dafa jar nga taxaw leeral sénégalais yi mm-hmm. beneen défi bi. Ah, nga xamante ne bi da nga koy amorcer. toujours en fait dans la transparence ah, ah, mais dañoo nekk ci horizon bu proche gazier et pétrolier. Mm-hmm. mais sëriñ bi bu nekkee ñun li ñu amas as néew. gaañ ñi dañ ci laxas jaan. tappale ci caaxaan ci dara leerul. mais pétrole ak gaz bu ñëwee. mais fan la jëm. moo yan loxo. <laughs> yan loxo yan loxo pour gérer yan loxo lañ koy teg loolu loolu gis nga Tchad du temps de Idriss it Itno na ko yàlla yërëm bi pétrole ak gaz ñëwee mhm. moom jàppoon na ne dootu ñàkk dara mhm. mu dugg ci ay infrastructures gigantesques d'accord mais après loolu daf leen rattrapé mhm. parce que y a des investissements yoo xamante ne man ci sama xalaat c'était fait des investissements prioritaires xam nga après lu mu mujj def ministre mu tere la par exemple ngay voyage de première classe député directeur généraux pour lan pour ñu yaxalalaat pour dabuwaat affaire yi parce que am na yoo xamante ne gis nga mars 2021 dafi jot a xew ak li xew nii yëpp mm-hmm. mais Jibi Sarr ñu bëgg ko ak ñu bañ ko tôt ou tard daf ñuy rattrapé moom li ah, ah, mooy li mooy li mooy li en fait euh, Ousmane Touré di wax mm-hmm. mais beneen bi mm-hmm. mooy làq doom dóor doom mais président bii di ñëw très honnêtement Macky Sall nii président bii di ñëw sëñ bi Macky Sall dañ koo xeexal ngir loolu <laughs> làq doom dóor doom loolu moom war na fee jeex làq ministre dóor ministre làq acteur politique non làq acteur non xoola làq acteur politique partisan de la majorité mhm. écragé opposant loolu moom mënatul nekk Sénégal. mënatul nekk très ah, euh, <laughs> honnêtement. Cheikh Ousmane. xaaral ma ñëw Cheikh Ousmane. <laughs> loolu mënatul nekk quoi lan mooy les défis colossaux yi yi yi nga xam ni moom la prochain président bi di di ñu mën ko xaarandi ci moom. première chose mooy foog mu def mooy foog mu def.